Bırakın! ginnaaw gaa yi wax dëgg wax dëgg lii ku mu dawul sa dawul sa sa yaram xaw ma lan moo man de man de dafa am euh, lu ma bëgg ñu waxtaanee tuuti ginnaaw bu ma wéyee di leen delloo njukkal surtout la jeunesse jàpp naa ni amoon ngeen yaakaar bu rëy siman man jàpp naa ni jàpp naa ni jàpp naa ni ah, yaakaar bi tey la gën a rëy bi ñu joxe résultat yi wallaahi xalaatuma sama bopp man. may wax ni may wax ni bi ñu joxee résultat yi may wax ni wallaahi xalaatuma sama bopp man yéen laa xalaat ndax jàpp naa ni yaakaar bi dafa foor waaye yaakaar tasul de yaakaar tasul te yàlla bu mu tas mukk li am am na nee naa leen jàmm bi bëgg-bëggam la am borom bi dogal boo leen seetloo ci biir campagne bi damay wax toujours ne ñun jàpp nañ ñooy gañe waaye bu yàlla weddiwul yàlla nag dogal na li muy dogal ak li si xew yépp Nous savons pas, Mais nous savons que le véritable maire, vous savez. Vous voyez, nous, les républicains, même si tu es le maire sociologique li urne yi moy maire Nous fal ñu nanguko. ñun suñu nous am sañ-sañ parce que liñu ñu xalé yi xeyna duñu am jumtukaay yépp doxal waaye jàpp naa ni suñu xam-xam bu gàtt mën nañu organise xale yi ba bëri mu antu moo tax moo tax bu ñu jëlee une semaine de repos ñu dal lu tuuti ñëpp noppalu dinañ fi dellu suwaat woo xale yëpp wax leen li nga xam ni ñun fas yéene nañ ko def ak yéen ndax xale yi soxla nañu liggéey xale yi soxla nañu organisation Médina am na mbir yu bëri yoo xam di fi xew ma ne xale yi bu seen coobare bopp loolu duñ si dugg dinañ leen dimbali dinañ leen jàppale si li nga xam ne yàlla wërsëgal nañu Jigeni, gatte ngalam parce que nit nit tok fi juromi at juromi at musul gis lo xamni jogé na ci maire bi ñew ci mom ñun nak fasiyene nañu te laata ñuy bëgg maire bi commencé nañ ko bëgg nañu képp ku taxaw fii képp ku ànd ak ñun nga xam ne am na njëriñ nga ànd ak ñun li des nag mooy que politique la nekk politique kenn du tay boo perte nga xam ne nga da ngay taxawaat defarwaat di xaaraat di ñëw nga xeex ko donc dinañu gën a réorganiser wu ñun ñëpp muy CATB muy keneen ak keneen koo xam dafa ñëw ànd ak ñun dinañ ko réorganiser ba nga xam ni politiquement nee naa leen li ma bind si nasaraan sànq nee naa leen boo demee élection yu mel nii man de loolu moo ma dal man dama jàpp ni pertuma dara li am mooy. li am mooy li am mooy dama am jàngat bu boo xam ni bu profond si élection yi jàpp naa ni ab élection du amati bañu nax ma jàpp naa ni japp naan am na loo xam ne bu ñu ko doxale woon ba léegi kenn waxatu ko sama xel bu gàtt mooy que ne gis nga borom bi bu la bëggee am na loo xam

li doon bañ li ñu doon bañ li li ñu doon bañ li ñu doon bañ li ñu doon bañ mooy ndax mbir mi sotti na avant élection yi waaye boo fi commencé woon di joxe financement ñu ne yaa ngi def corruption ñun nag pour wara ni ñun Médina moo ñu ñor du leneen suba la ñuy commencé problème mu financement yooyu xale yi góor ñi xale yi xale yi xale yi xale yi xale yi sant naa sant naa ñoom Thioub ñoom Omar Sow ñoom Atoumane ak Pape Moussa ñu commencé def listu xale yi ngeen bokk yéen ñëpp ci ay mouvement bu ko defee bu ñu jëlee une semaine boobu dix jours comme yi ma wax bu ma ñëwee dinañ def manifestation bu mag boo xam naa waxtaan ak yéen en direct ngeen wax ma seen i mbëbët ma wax leen li may leen yéene ñu avancer pour l'instant parce que li si nar a am mooy ma koy wax jigéen ñi ma koy wax jigéen ñi di ko wax góor ñi maa ngi koy wax jigéen ñi di ko wax góor ñi dama ni léegi kenn dootuñu nax képp koo xam ne inscrire si mouvement boo xam ne dafa bokk si ñun wax dëgg am na loo xam ni mun la ko jagleel. organisation élection organisation bu le la laaj bouillir bu lac la laaj dafa am ay mbir yu bëri yu gàllankoor suñu élection waye xam ngeen ni bu fekkone lepp jaar na yoon amna lo xamni kenn waxatu donc la jeunesse na ngeen

ndax jàpp naa ni waaw gaa yi

te am na ñoo xam ni waaw am na ñoo xam ni ngeen ngeen ngeen ngeen muñ dina leen façon comme ni ko gars yi waxee dinañu organiser wu ba nga xam ni wax dëgg doo leen ne. maire yi am na fii parce que di ngeen am ku leen jàppale di ngeen ko am nekk seen ginnaaw nekk seen wet incha